am soit que ñu tëj ñëpp ci kaso bi wala ñu ne dañuy rey ñëpp wala ñu bàyyi ñëpp am liberté d'expression te ber ci topp ni ñu doon xeexale Pape Alé Niang keroog damaa dem ba si boo ko fekk fa waxtaan ak moom lu bari keroog bi ñu koy auditionné bi mu bi mu génnee ci bureau juge bi maa ngi taxaw maître Moussa ma waxtaan ak moom fan lañ ci teg mu génn Karim Xurum xam gis naa ko maam Oumar Diagne maa ngi ko war Cheikh Oumar Diagne ko war a seet juma vingt deux otages politiques yi def ci biir kaso bi damay wax Macky Sall ne leen libéré ñu génn ñun lii ñuy xeex xeexuñu ko suñu bopp nee naa ku lu ëpp cinquante ans leneen loo ci teg bénéfice la yéen jeunesse bi yéen a tax ñuy tax ñuy bañ nit li muy xeex daf koy xeex pour li ñëw ci kanam maa ngi koy wax ak Clédor léegi maa ngi koy wax léegi ak Thiam bu Yann Amar maa koy wax léegi ak Kilifa maa ngi koy wax ak Babacar Diop ni ko le combat continue lu ngeen ñu woo ña nga ca bu ñu teggi suñu tànk dañuy bañ troisième mandat lañu kenn du ko nangu moo ne woon nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs wasalaamaaleykum wa rahmatullah Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez les otages. Macky Sall. Dictateur. Macky Sall. Dictateur. Procureur. Corrompu. Procureur. Corrompu. Procureur. voilà jërëjëf papa ñu ngi lay sant di la gërëm kaddu yi am na solo kaddu yi am na solo waaye suñu paree ci papa dañuy jox nay leer nay leer yéegal nay leer kenn du ko introduire mooy introduire boppam. grand Abdoulaye Diène. maa ngi wax mu rapproché wu parce que su ma leer teree mooy jël bokki Afrique diaspora bi yéen ñi ci biir réew mi yéen ci bitim réew mi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare toog ma ba joxu baax xeex ba dàq tubaab yi burgoon bur siin ku réew moomu ay sëtam ay doomam du ñu nangu injustice kenn du leen teg injustice ñu koy nangu Macky Sall président Macky Sall dañ lay xamal ne la yow xamuloo ñi nga amal problème xamugoo ñi nga amal problème yow yow sa problème mooy da ngaa xamul ñi nga amal problème yow Macky Sall boo xamoon ñi nga problème doo dugg ci problème mois de mars daaw maa ngi ñaanal Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké daf laa génne woon ci problème bi. sëñ Mountakha Mbacké génne woon na la ci problème bi waaye yow neexuloo génne ci problème ndax dangay nitu problème Macky Sall nitu problème nga. nitu problème nag problème dong koy lijjanti problème problème dong moo koy lijjanti xamoo buur saay na bu xamul buur saay na xam buur dee na doomi jaambur yii nga tëj ci kaso bi. di ay sénégalais yoo xam ne nii seen i la ñuy xeex sàccuñu alal réew mi détourné wuñu alal réew mi reyuñu nit agressé wuñu doon ay nit ñu diñ nekk ci seen i droit di xeex démocratie te yow ba ñuy xeex démocratie 2012 da ngaa dawoon da daw dugg ci pharmacie bi ñun nag kuy daw duñu dàq ñun kuy daw duñu dàq ma xamal la ne la combat bii nga dugg insha allahu taala da ngay échec da ngay échec Macky Sall da su ma la ko waxee war nga ko gëm ku la dig ne la da nga tëj suñu doom yi ci kaso bi ñu may la jàmm da lay doo am jàmm tey doo ko am ëllëg feeg bàyyiwoo suñu otage politique yi nga jàpp yaa ngi jàpp Diop Taïf Pape Diop Kara Cheikh Omar Diagne maam Aliou Ndao da nga koo jaay doole tëj ko ba mu faatu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu lay xamal ne nag incha allahu taala feeg libéré wuñ la duñ la may jàmm duñ la may jàmm ci réseaux sociaux yi ngay bañ a dégg. te incha allahu taala Diop Taïf di jàmbaar di xeexkat defu la dara nga tëj ko def ko article quatre def def ko instruction tëj ko ci dara nga yóbbu ko Samb Samb 38 Fadilou Kayta nga di yóbbu Rebeuss di ko ay gol te yaayam li mu liggéey ngay temps dafa jaaduwutoon nga jël doomam di ko tëj di ko paqueté di ko yóbbu centre pour 38 mel ni ab criminel. jërëjëf ñi ngi lay wax nga bàyyi doomi jaamur yi. jërëjëf jërëjëf Amadou Sall Amadou Sall yaa ngi ko bàyyi ci biti Amadou Sall sa doom buñ buñ mosoon kaso doo jël doomi jaamur tëj ci yi rafet na kaddu yi rafet na jërëjëf. waaw jërëjëf. nay leer. li mu fi na nañu. waaw di fàttali ne rek pour ñeneen ñi nga xamante ne ñoo war a jël kàddu ñuy sóoraale temps bi tuuti. ñuy sóoraale timing bi timing bi am na solo pour pour ko defee doyen Abdoulaye Diène mën nga lépp di fàttali ne Y'en a marre war nañ jël kàddu ci kanam kuy war a jël kàddu ci seen tur mooy cat cat bu Y'en a marre dina jël kàddu après ci kanam di wax ni ñu ngi fiy seen Abbas Fall Pastef Dakar moom tamit dinañ ko jox kàddu gi waa Kolideb ñi ngi sant di gërëm. ñëpp ñoo xamante ne def nañ déplacement kii may bëgg a jox kàddu nag kii may bëgg a jox at ci mbir mi waaw loolu loolu am na. waaw bi yow jël na kàddu ba pare. waaw waaw waaw kon doyen Aliou. doyen Aliou Thiam Abdoulaye Dieye du Moes jox nañ la kàddu gi. libéré libéré libéré libéré. libéré. salaamaaleykum maa ngi ziar di leen wax ngeen def mention spéciale ak Colitep tàccu leen Colitep ñooy organiser saa su ne c'est des gens qui sont toujours de Sénégal loolu la laaj jamono ji suñu wax di ko sekkal pexeem yëpp mooy naka lay def ba am troisième mandat troisième maanaam euh, comment ça s'appelle troisième candidature moom lañ ko mën a wax comme que loolu la bëgg moo tax ku nekk ku wax mu nekk xaaral ma tëj ñi nga xam ne dañuy couvrir ay journaliste ay ñi nga xam dañuy couvrir ay événement di ko tasaare ci réseau yi ku xam ne mi ngi topp sax convoi benn leader politique ne yaa ngi filmé mu jàpp tëj ci kaso bi Cheikh Omar ay Abdou Karim Gueye yooyu yëpp ay alibi lay di leen tëj mais il a déjà perdu moom combat bi ñàkk na ba pare réseaux sociaux yi xale yi dañuy def seen vidéo di ko dugal kenn fayu leen c' est la jeunesse qui veut le changement moom na ko xam mu bàyyi suñu réew moom nag dem na New York Times États-Unis di wax naka lay génnee nee na moom mooy tànn li muy génnee moom moom tànnul ñun ñooy tànn bu fekkee ne dafa bëgg mu métti nañu wax bu fekkee ne dafa bëgg génn par la grande porte. nañu wax mais bu fekkente ni moom dafa bëgg bu métti moom tàndul ñun ñooy tànn ñun ñooy tànn seul le peuple est souverain maa leen gërëm di leen sant. jaajëf jaajëf. kàddu yi rafet. jërëjëf jërëjëf jërëjëf doyen doyen di teen ñu ngi lay sant di la gërëm kàddu yi am ñu jox ki nga xamante ni moom mooy wax au ok RV RV bu professeur Cheikh Omar Diagne may leen ko loxo bu baax a baax Takulla Guèye Ahmed Takulla mooy wax ci turu professeur Cheikh Omar Diagne bi nga xamante ni ñetti weer a ngi nii mi ngi ci kaso bi ci lu tegul fenn parce que tout simplement àndut ak Macky Sall kele door mu ngi lay fenn. asalaamaaleykum wa rahmatullah damaa bëgg yéen ñëpp ngeen tàcc seen bopp seen mobilisation bu ngeen def ndax yéen au moins xam ngeen lan moo leen war bu lépp jaarul yoon instant bi fii dafa waroon fees dell waaw ndax instant bi mu toll nii notre démocratie est en danger te loolu responsabilité chaque citoyen la di leen jottali nag nuyu Cheikh Omar Diagne sànq maa ngi dégg kenn ku fi wax ni Macky Sall xamul ñu mu ko sékkal waaye tamit Macky Sall xamul Cheikh Omar Diagne mu ko sékkal ñu koy si réseaux sociaux yi mi ngi koy xamal ne ak instant bii toll si la gën a déterminé wu instant lu toll si la gën a engagé wu si Sénégal dara mënu ko xoqatal c' est pas parce tëj kaso comme mooy wàññi dara si engagement loolu damaa bëgg leer ñi nga xam ko dama leen di jaajëfal Cheikh Omar Diagne le régime da ko ragal au-delà de engagement politique am régime bi ragal ndaxte lu mu doon dénoncé ci ay projet maçonnique bi fi doon am bu mu engagé na ci parti ci politique boobu ba léegi régime bi da koy xeex je vous rappelle de six mois bu ko cumulé et ko arrêté mois d' avril mu génn mois de ko mu defaat trois mois boo ko cumulé ça fait de six mois c' est à dire la moitié de ngi ko passé en prison parce que tout simplement dafay wax xalaatam ne moom àndul ci troisième mandat bi àndul ci projet Macky Sall bi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp merci. jaajëf kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na. jërëjëf grand frère. waa léegi ki nga xamante ne moom la ñuy wax Babacar Diop mi bokk ci mouvement jàppal ma jàpp kon Babacar Diop mouvement jàppal ma jàpp kaay ci nga exiger la libération immédiate et sans condition des détenus politiques. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di ziar yéen ñëpp seen yi fi ñëpp ñëpp ak paa yi fi ñëw ñi nga xam ne dañoo bëgg Sénégal tey suñu taxawaay fii mooy. dañoo bëgg génn si nooteel dañoo sonn si nooteel bi Macky Sall di noot nit ñi dañoo sonn si justice boo xamante ni ku ma am ndey la ku ma amul ndey bu fekkee ne da bokk si kaawu Macky Sall boo defee dara kenn du la def dara bu fekkee ne da ngaa bokk si opposition bi wala nga nekk bañkat benn gaaw nañ si ñooñu pour humilier leen yooyu yëpp pour troisième mandat bu muy bëgg a nit ñi lañ bu fekkee ne troisième mandat la soxla xam naa ni moom li gën a gaaw mooy mu rey nit ñi moo gën a gaaw ndaxte kenn du ko bàyyi troisième def fi troisième mandat ñaari ñaari mandat yi mu am am na réew mi ñu yor réew mi ndaxte réew mi ci dictature lañ nekk te dañoo war a génn si yoonu dictature bii am na loo xam ne ñun kenn du ko nangu ay bañ bañkat la fi fekk xam na ni ay bañkat la fi fekk dañuy bañ ba xëy dee Macky Sall moomul nit ñi li wóor ba wóor mooy bu fekkee ne bëgg na jàmm réew mi 31 décembre bii na déclaré ni moom du def troisième candidature mu dem yoonam loolu mooy li nga xamante ni moom la sénégalais yi bëgg moom la àdduna bi bëgg bu fekkee ne jàmm bëgg na ko si réew bu fekkee ne nag bëggul jàmm nag na déclaré ne day am troisième candidature xam naa ne moom bu ko déclaré bu fekkee ne bakkan lay laaj man sama bakkan ñeme naa kaa joxe ndax kenn du ko ko fi defee loolu moom xam nañu moom moom la seen yëpp bëgg kenn du ko fi def du fi defee troisième mandat loolu moom lu ma wóor la yàlla yàlla def jàmm kontaan nañu lii li ngeen def nii dafa wane ni ay bañkat ngeen ndaxte ñoo xamante ni ñoo doon ànd fii di mars tey ñu jàpp leen wax dëgg yàlla yéen ñii boo leen génnee dafa war a wane ni ñun ay bañkat lañ ñun ñëpp dañu wone ni bëgg dañu ñooñu te ñun ñëpp benn lañu réew mi kenn moomu ko dañoo sonn si nooteel bi dañoo sonn si jaay doole bi jaajëf yàlla yàlla def Diop Babacar Diop Paa Wolof nee na tey su ma ko joxul kàddu du ma fanaan suñu kër maanaam daf ma menacé pour ma pour ma kàddu bàyyi ma jox ko kàddu mu wax ak yéen ci ay olof yu set wecc pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques sans distinction aucune. nuyu naa leen waru gii du gudd juróomi téeméeri at ci ginnaaw Sénégal dafa tegoon nguur. gu maandu gu ñuy wax jolof ñëpp ànd ci bis bu mu amee ku ñuy wax leli kuli fàkk mooy comme Macky Sall dictateur ay gone dañoo jóge ca Kajoor à l'âge de 19 ans Amari Ngoone Sabel tàggu baayam de ci fi loolu ñëw damm moomeel gi libéré Jolof libéré Bawal ñu ne deetawaay ñu teg ci juróom-ñaar fukki at ñu teg nguur ko am démocratie ci Kajoor daaw Demba mi gën a niroog Macky Sall ba tey taxaw xam nga dictateur li muy jariñ dafa xëy na leen tere naa leen fudd tere naa leen lekk yàpp ñamu saf xorom buuroo ko jagoo waaye tere naa leen yàpp woo d'abord waaye mu teg ci lu gën a bon mooy ku jël xale bu jigéen bu rafete nii koo jëfandikoo maa koy jëfandikoo man buur Kajoor nag ne faaw ñu dem moomeel gi ku xamul buur saay na xam buur nangam tànn loolu moo fi nekk gis nga damay wax ne Cheikh Omar Diagne Karim Gueye ki nekk ci entre quatre murs sañ a wax ne déet moo gën a ki nekk ci biti buñ la waxee ngay xapp xappi suñ nee la demal nga libéré sa peuple ngay xapp xappi di ndamoo la joor di ndamoo sëñ Touba di ndamoo yonent bi soo fekke woon seeni jamono tamit ci jaam ñi ngay bokk parce que ñeme woo wax waaw dafa am loo xam ne nag kenn warulaa yaakaar yab la ñan ñoo war a kaso moo ñi xam ne rapport ICA e bi bi fii milliards Abdou jur jël ci 205 milliards dem ñuy abal 477 milliards la ñu abale Abdoulaye Wade jël ci ñaata 498 milliards ñuy abale 2850 milliards Macky jël ci 3000 tey mi ngi ci 6 6411 virgule 1 milliards. Senghor liñ ko nattal yëpp mu toggal ñu mi ngi toll ci mille trois cent milliards baax na am baaxut yàlla xam xam njat Abdou Diouf liñ ko nattal yëpp liñ jox ci dépense yëpp huit mille milliards baax na am baaxut yéen a koy wax Abdoulaye Wade fi nekk yëpp Abass Fall adjoint député à l'Assemblée nationale de la coalition Yewwi Askan Wi Abass Fall de Pastef les Patriotes vous avez la parole mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbir yi waxoon nañ ko fii dañuy toogaat tey di ko waxaat tant que Macky Sall mu ngi téye suñuy ñoñ ñuy wàcc ci mbedd mi ñun aussi bu sonnul du ñu sonn à ah, ce dëgg tant que ces jeunes d'honnêtes citoyens sont retenus en prison dinañu wàccaat manifester Sénégal dëkku paradoxe la Sénégal maa ngi koy wax léegi li fi xew ci injustice buñ ci jugul dina fi indi loo musiba boo xam ne kenn du xam fuñ koy nettalee Sénégal ngay gis ay crime financier ay nit ñoo xam ne dañu mel ni ay bukki yu gis yàpp tëdd ci alalu réew mi imagine leen rek ay nit feebar di dee ci Covid ay nit ñàkk seen liggéey ndax Covid ay nit dee ndax Covid ay doomu aadama jël alal jooju nga xam ne pour ñooñu la woon mais di ko dugal seen poche loolu lu ko lu ko gën a ñaaw amul lu ko gën a ñaaw amul mais pendant ce temps ñu téye ay donet citoyen di leen di leen di mais leneen lu gën a garaaw gis nañu Sénégal fan yi yëpp ñu di ko coow ay nit jël xale bu jigéen di ko toroxal di ko jëfandikoo loolu lu ko gën a bon amul ci réew et pourtant pourtant organisation yi nga xam ni ñoom ñoo fiy nekk di wax waxu droit de l'homme waxuñu ci xale yi nga xam ne dañu leen dugal kaso ce n'est pas normal il faut que ñu relâcher leen immédiatement waxoon naa leen ko fii waxaat naa leen ko tey tant que demuñu place de l'indépendance tant que demuñu place de l'indépendance